ginnaaw bu ñu sante buur yàlla tabaraka wa taala noo ngi julli ci sang bu tëdd di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu suba si waxtu wi ñu fas jokk ci bunt bu jiitu woon xam ngeen ne démb buñ doon taxaw ci waxtaan wi ñu ngi taxawoon ak yéen importance ba julli am ci diine jullit bi tey bi iznillahi subhaanahu wa ñu wara jokk ci bunt boobu beneen bunt bu bees ba léegi mu aju julli bi nga xamante ne borom bi tabaraka wa taala bim ko jox ngir jullit bi mu di ko jaamu boromam ba tax na yonenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox julli woowu mu jàngal ñu julli boobu ban anam lañ koy defee ak wan importance la am ci diini islaam tey buntu boobu lañ leen fas yéene dégtal inchaa allahu subhaanahu wa waaye xam ngeen ne boroom xam-xam ju mag bi ñu naan xasanul basri rahimahullah xasanul basri boroom xam-xam bu mag boobu yal na ko buur yàlla yokk yërmande nee na ibnu aadam innama anta ayyaamun kullama dahaba yawmun dahaba baadu mbokk yi boroom xam-xam di xasanul basri rahimahullahu nee na ibnu aadam yow doomu aadama bi xamal ne innama anta ayaamun lala fi tax a bay tax nekk mooy fan yay ñëw di jaar di jàll di dem fan yooyu moo la fi tax a toog te moo fi tax a bay tax na na nga bàyyi sa xel ne kullama dahaba yawmun béppa bis ba ñëw jaar jàll te dem xamal ne zahaba baaduk am na lu wàññeeku ci yow kàddu gi nag ku góor war na ci bàyyi xel waaye ku jigéen war na ci bàyyi xel ndax ñoo bokk nekk meññeefu suñu maam aadam moo tax yow doomu aadama bi yow la boroom xam-xam bi di waxal yow la wax bi concerné ba tax na bés yooyu ñuy jaar di jàll di dem ci dundu doomu aadama bi te dootuñu delsiwaat te bépp bés ba dem dootul ñëwaat moo tax suñu yonent bi alayhi afdalu salaatu wa azka taslima mu ne ñu ndoorteelu bés boobu bu la yàlla wërsëgalee bam la delloo sa ruux lang ci war njëkk def lang ci war a njëkk wax mooy sant yàlla ci xéewal bam la defal delloo ko njukkal sant ko ndax ña nga dandoor biig ci guddi am na ñu wéyal seeni nelaw boobu dem wuyu seeni borom kon gannaaw bu la buuri yàlla delloowee sa ruux yow mii nekk jaamu yàlla am ñu continuer nelaw boobu dem dajeek seeni borom yow mu delloo sa ruux ba nga mën a dundaar yeneen fan kon bés bam la may occasion delloo la sa ruux ba nga dund dala yonentu bi ne loolu nga war a def amul kenn ku la ko war a wax ku dut yonentu bi alayhi wa ndax képp ku la wax ne bés bi nii nga ko war a songe nii nga war a ubbee sa bés ku dut la yonent bi jàngale jox na la li nga xamante ne mën nañ ka seetaat ba xam wér na walla wérul waaye la yonent bi jàngale la yonent bi joxe comme tegtal ne yow julit bi bu la yàlla mayee occasion bu la yàlla mayee nga am occasion pour dundaat beneen bés nañ leen bokk déglu la bi tegtal ak la joxoñ ne noonu la bi war a comporté wo sallallahu alayhi wa moo tax mu ne adkaaru istiqaad min an nawm baat yi dañ koy wax jamono bu ñu jógee ko ci nelaw nga fas yéene songu sa bés boobu ak cant yàlla bi nga xamante ne dañuy bind sa nelaw boobu comme jaamu yàlla moo ne yonent bi daf ne jullit bi bu yeewoo ci nelaw na sant yàlla na wax baad wi na wax alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur ñaan bi la muy tekki bi la muy tekki mooy ki yàlla yónni ci askan bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne képp ku yàlla may occasion bi nga yeewu ci nelaw nanga sant buur bi tabaraka wa ne ko cant ñeel na la yow yàlla ndax yow yaay di buur bi nga xamante ne axyaana yaa dundal daloo ma sama ruux baada ma amatana gannaaw bi ma defe ma dugg ci nelaw bu ñu naan dee bu ndaw te wa ilayhi nushur ci yow yàlla lañuy dellu bu dee dee dëggintaan ñëw na pour jël ñu ci kaw suuf si kon yàlla sant ñeel nela la gannaaw bi ñu faate ñu dugg ci nelaw mu doon dee bu ndaw waaye dee dëggintaan xaqiqatul mawt bu ñëwee duñu dellu ci kenn duñu dellu ci fenn duñu dellu feneen fu dul fa yow yàlla su ko defee ñu daldi di note la nga xamante ne loolu nga ñaan comme jaamu yàlla ndax yonent bi yàlla yónni sallallahu alayhi wa moo ñu tegtal tegtal bi ba tax na xam ngeen ne ba léegi bés boobu boo ko waxee nga jóge ko ci nelaw su ko defee nga dégg noddukat bi di noddu ba mu àgg ci assalaatu xayrun min an nawm bu àggee foofu nga daal di déggal convocation yañ la convoqué ci néegu yàlla bi di ci jàkka ja nga daal di séq ab jéego dem wuyu la nga xamante ne loolu mooy convocation boobu su ko defee nga déggal la nga xamante ne mooy lañ la woo woote boobu nag suñ yenent bi sallallahu alayhi wa sallam la xeet wi ne noonu lañu wara war wuyoo woote boobu jàngal nañu ko ci anam bi nga xamante ne noonu lañu jiitale jiitalee nu ñu déggee woote bi ak ñaan ba ñuy teg gannaaw bu ñu déggee nodd kon njëlbeenu waxtu wi nga xamante ne moom la jullit bi war a suubu bés bi duggee ko ci bés bi mooy waxtu julli suba am ñu ne waxtu yu julli fajar ala kulli xaalin xadis ba nga xamante ne moom la abi hurayrata radiallahu anhu génnee nee na anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal araaytum law anna nahara bi baabi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin xamsa marat hal yabqa min daranihi shay'un qaalu laa yabqa min daranihi shay'un qaal fa dalika mislu salawaati alxams yamxu llahu bihinna alxataaya muttafaqun aley mbokk yi yàlla na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ki yàlla yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa azka taslima bi sahaabi bu mag ki ñu naan abi hurayrata radiallahu anhu daal di ko génne nee na suñu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu araaytum moo ba xam gis ngeen araaytum xam gis law anna nahara bi baabi ahadikum bu dee kenn ci yéen yàlla daka baaxe mu yore piscine bi nga xamante ne dex lay doon ba nekk ci buntu këram yaxtasilu minhu kulla yawmin xamsa marat mu di plongé ci biir dex boobu wala ci biir piscine boobu ci bés bi juróomi yoon yonent bi nee hal yabqa min daranihi shay'un ba xam kooku yaramam dina am taq-taq tilim yay taq ci yaramam keroog ba ko yonent bi laajee saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain yal na leen yàlla doole ngir mande keroog ba ko yonent bi laajee saxaaba saxaaba yi dañoo tontu yonent ñu ne ko qaalu laa yabqa min daranihi shay'un ñu ne yonent bi ne kooku de yaramam day set wecc dara du nekk ci taq taq tilim ci yaramam taq taq tilim du nekk ci yaramu kooku di plongé ci dex bi juróomi yoon bés bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen fa qaal fa dalika mislu salawaatul xams noonu la juróomi waxtu julli yi mel képp kuy plongé ci dex bi juróomi yoon ci bés bi xam ngeen ne kooku yaram bi du am dara ci ay taq-taq waaye noonu la mel tamit képp kuy julli juróomi yoon ci bés bi noonula ko suñu boroom tabaraka wa di faxase di ko laabale di ko setal ci ay bakkaar yamu jëf xadis bi buxaari muslim dëppoo nañ ne xadis bu wér la mbokk yi ñu war a mën a déggee ci maanaa xadis bi tàngoor bu ñu ñaxee bi suñu xetu yaram soppeeku ndox ak saabu ya ñuy jëfandikoo ak njàmpe mooy lay dindi taq-taq tilim yooyu nekk suñu yaram waaye taq-taq bàkkaar tilimu bàkkaar yaay tilimal suñu ruux bàkkaar ya ñuy def bay taqal suñu ruux ak suñu jëmm loolu dañ ne njàmpeg saabu ak ndox du ko dindi lenn rek moo koy dindi mooy la nga xamante ne mooy respecté waxtu yu julli di ko defee ci mbooloo rawatina boo déggee noddukat bi di noddu te lam lay woo mooy kaay ci la nga xamante ne moo lay jokkale sa digganteeg sa borom moo tax nga dégg noddukat bi naan hayya ala salaa kaay leen ci julli bi nga xamante ne mooy doon pont moo doon échelle wala bumu jokkalekaay bi nga xamante ne mooy jokkale jaam bi ak boromam subhaanahu wa taala mu di baamu baat bi la tollu ñaari yoon ba léegi yàlla mucc doomu aadama ak texem defu ko ci lenn lulul la noddukat bi di teg gannaaw bu mu ne kaay leen ci julli moo tax nga dégg muy wax bi léegi hayya alal falaax kaay leen ci texe bi texe bi nga xamante ne képp ku ko ñëw wuyu si nga dékkee di wuyu la lay jokkale sa digganteeg sa borom nga dëkk di wuyu la jokkale sa digganteeg sa borom waaye nga dëkkee di wuyu la nga xamante ne mooy texe ba ngay wër fii ci àddina te nga soxla ko ëllëg bés pénc bu dee da nga takk sa xol nga dogg ne màndargaay texe bi may wër fii ci àddina saa yuñ ma woowee ci texe boobu dinaa wuyu ba sama ñaare malaaka yi seede ma ne man de saa yu ma déggee ñuy woote texe dinaa dem wuyu su ko defee ëllëg bés pénc yàlla boole la ci kuréel ñay texe waaye géemuloo faale convocation boobu ak woote boobu julliwoo nga dégg noddukat bi ne xay yàlla sala mel ni déggoo dara nga dégg noddukat bi naan xayya alal falaax mel ni déggoo dara ngay fàtte fàttalu walla ngay dumuyu hmm, wóorul wóorul de ndax boo xamee la noddukat bi di wax ci nodd bi wax màggaayu yàlla wax dayo yàlla ci noddu bi mu daldi la wax ne maa seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dégg ku dut yàlla mu tegal la ci ne maa ngi seede ne Muhammad yàllaa ko yónni mu teg ci ne hayya ala salaa kaay leen ci julli mu baamu baat bi ba ñaari yoon julli bi nga xamante ne moo lay jokkale sa diggantek sa borom julli bi nga xamante ne yonent bi daf ne képp ku ko sàlloo respecté ko cinq fois par jour yàlla dina la laabal ci ay bàkkaar ci ay tilim tilimu bàkkaar laabal sa ruux waaye laabal sa jëmm tamit ngay dund leer bi nga xamante ne borom bi tabaraka wa taala koy barangel lii foo ko mun a amee du commerce du ci liggéey du ci jàng du ci lenn lii ci julli dongo nga koy ame waaye kon boo déggee noddkat bi di nodd di wax baat yu kawe baat yu màgg yi mu tegal la si ne kaay ci texe bi nga xamante ne fa nga defe ne foofu la sa texe nekk du foofu de waaw sa texe fu mu nekk fa la noddkat bi di la woowee waaw kañ kon demal wuyu ko bul mel ni déggoo dara bul mel ni noddukat bi nekkut di wax dara waaye nag yaa layta noddukat bi ci jëmmam xam lu muy wax lu mu doon waaw mu respecté baat yi mu di ko waxee comme na mu nekkee rawatina bu baat bi neexee moom boobu beneen affaire la moo tax tàmm nañ noddkat bay nodd di woo jullit ñi ngir ñu ñëw la nga xamante ne moo leen di jokkale seen diggante ak seeni boroom mu doon boroom baat bu neex mu doon jëmm joo xamante ne la muy wax dakay xam ndax mooy woo jullit ñi ngir ñu ñëw ci li nga xamante ne seen texe àddina ak àllaaxira fa nekk moo tax yonent bi nee julli boobu képp ku ko respecté juróomi yoon ci bés bi nee na borom bi tabaraka wa dalay laabal ci say bakkar kom ku yore dex piscine ci këram mudd ci sangu juróomi yoon ci bés bi ni ñu wóoree ne kooku di sangu ci pisin bi cinq fois par jour yaram bi dootul tax dara ci ay tilim-tilim noonu lañu wóoree ne képp ko saxoo di julli waxtu yu juróomi ci bés bi noonu la ko buur bi tabaaraka wa di laabalee ci ay bakkaar ya nga xamante ne moom la nekkoon di jëf yàlla ñu yàlla déggloo xaddis bi yàlla ñu yàlla may dégg topp ñu mën a jëfandikoo xaddis bi lañu suñu yonent bi baaxe sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi léegi ñu ngi ànd ak yéen ci waxtaanu fajar fii ci Rewmi FM 97.5 ñu àndil leen suñ ñaareelu bunt bi nga xamante ne moom la suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxee ci xadis bi nga xamante ne dane qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam laa yasturu abdun abdan fi dunya illa satarahu llahu yowma alqiyaamati sayul muslim mbokk yi xadis bi mel na ni jamono yi tey nit ñi lay waxal ki yàlla yónni ci askan bi sallallahu alayhi wa sallam mu bëgg a xamal jullit bi ne ëllëg bés pénc dafa am xew-xew bu mag dafay xew képp ku bëgg borom bi tabaraka wa la ci loraange bés boobee fii ngay dund ci àddina dafa am noo fi war a taxawee ak ñang fiy bokkandoor di dundandoor ak ñoom ba tax na sallallahu alayhi wa nañu laa yasturu abdun abdan amul benn jaam bay sutural moromu jaamam fi duniya fi ci àddina illaa satarahu llahu yowma alqiyaamati lu dul ëllëg bés pénc borom bi tabaraka wa taala dina ko sutural yonent bi nee na wa sallam amul benn jaamu yàlla bay suturaal moroomu jaamu yàllam amul benn nit bay mën sutural suturaal moroomu nitam képp ku suturaal nit fii ci àddina ëllëg bés yàlla dina la muur malaanum sutura ca lu ñaaw la nga nekkoon di def te kenn xamu ko danga bëgg yàlla suturaal la bés bis bi nga xamante ne bokk na ci turam yi yawma tubla sarair yawma tubla sarair keroog bés pénc dafa bokk ci màndargay bés pénc walla mu bokk ci turu bés pénc bés bi nga xamante ne dañuy ne fang lépp lu nëbbu woon lépp lu nëbbu woon keroog dal naan fang kon boo bañee sa lu yooyu noonu ne fàng ëllëg bés pénc nekkal fi di sutural nit ñi yow mi jël sa téléphone di topp réseaux sociaux yi tuddee sa plateforme topp kaa aritel dafa doy ngay topp kaawu jàmbur yi booy topp kaawu nit ñi fii di wuññi kaawu jàmbur yi fii di dugg ci problème wu jàmbur yi fii ci àddina ëllëg bés pénc bu yàlla fangaaralee sa beneen affaire lay doon yow mi tuddee sa plateforme topp kaa ci lan di wuññi sekere nit ñi arrêtel boo ko arrêté wul bu yàlla toppee sa kaa wuññi say sekere ah yow kaw ña ngay wuññi fii ci àddina am na ña koy xam am ñu ko dul xam waaye ëllëg bés pénc amul kenn kuy bañ a xam say kaa ndax ñépp a kuy gis ku la xam ak ku la xamul gàcc boobu foo koy waxee noo mën na dundee gàcc boobu kon képp ku bu képp ku bëgg mucc ci kaa ba yàlla di wuññi say kaa gàcc boobu képp ku ci bëgg mucc buntu baa ngi nii nanga nga di topp kaawu nit ñi loo xamal nit ñi suturaal leen yàlla suturaal la fii ci àddina ëllëg bés penc mu sàng la malaanum sutura mbokk yi jël sa micro wax ci sànni ci air war ngaa jombale sa bopp lee xamal ne làmmiñ bi ëllëg bés pinc du am lay yamuy lay say cër yadoon def yu defuwul ñoom ñoo lay seede te doo ci mën dara loo ci man xanaa tiit ak jaaxle laaj say cër ne li ma shahidtum alayna lu tax ngeen seede ci man seede bi ngeen def nii cër yi daal la tontu antaqana allahu alladi antaqa kulle chey yàllaa ñu waxloo buur bi nga xamante ne mooy waxloo lu ne loo ci man dara mënoo ci dara yépp lu la ko yóbbee yaa fi nekk di wuññi secret nit ñi di waxtaanee secret yi nit ñi tuddee sa plateforme walla tuddee sa la nga defar topp kaa waaw kañ nga nekk topp kaa fii ci àddina yow mal xiyaama ñu topp sa kaa yow kon nañ leen bokk dund ak xadis bi ñuy géema suturaal nit ñi ca lañ leen xamal ci ñaaw téef ya ñu rëccale ñu di leen muur malaanum sutura ñu di leen jéggal ñu di ànd ak ñoom di waxtaan ak ñoom waaye di leen conseil ba ñu génn ci éeréel ba ñu dugg waaye yow dara nekkul sa mbir lu dul nit ki tarxiis dugg ci pax nga daal di wax nu mu fa duggee ni mu fa nekkee ku la ko laaj lu tax nga di ko wax est-ce que yow boo tarxiisee dugg ci kàmb bëgg nga ki wax nang nga fa duggee ak noo fa nekkee déedéet kon nii lañu ñu war a déggee xadis bi moone ne yonent bi salaa sallam moo ñu ne laa yasturu abdun abdan fi dunia illa satarahu llahu yowma alqiyaama képp ku suturaal nit fii ci àddina ëllëg bés pénc borom bi tabaraka wa taala dina la suturaal yal nañu yàlla boole may la ñuy suturaal doomu aadama yi fii ci àddina ëllëg bés buur bi tabaraka wa taala ñu muur malaan mu sutura amin yaa rabbal alamin mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi nar a jibbal bërëb bi ña war ñëw joxe xibaar ñuy ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana allahuma aminna fi awtanina wa aslih allahuma aimmatana wa wulata umurina